rahmatullah mbokk yi ñuy nuyu ñëpp di ziar ñëpp di baalu àq ñëpp di rafetlu bu baax jotaayu tay bi di jotaay ci biir jotaay yi ndax teraanga bu ko ay nit yu baax bokkee séq di ko indil seen kilifa seen woy jur seen yaakaar fii ak fu ñu jëm ëllëg wax dëgg yàlla bu ñu jógee si ni ñu jógee defee ko ni ñu ko defee lu ñu ci teg leneen rek bénéfice la wolof nag day faral di lépp ni jege ak sori bokkul nit mën na la jegeñ lool te fekk mu ngi sori lool <laughs> nit sori la lool te fekk mu ngi la jege lool waaye Thierno Cheikh ñun day yëg nañu ci suñu biir xol ni li mu ñuy sori sori sori sori jege neen ko lool fa mu ne hmm. te ñun noonu lañu jege fi ñu nekk nii teraanga gii nag lii ñu def nii ñi àndandoo ñëpp kunu bi yëpp def ko xeeb nañu lii mm-hmm. waaye jekk na rafet na ñu walla ni li ñuy yëg ci yow nu mu toll bu doon tey dañu war a dagg suñu yaram nii pour indi ko pour jox la ko sax dinañ la ko defal nga xam ne noonu nga toll ci ñun bonte daal lii ñu la jox sëriñ bi taalibe yépp bokk ànd sukk sa kanam jëlaat suñu bopp joxaat la waxaat la ni la ñu ngi nii yaa ngi nii boo ñaanee rek lépp baax waaye lii ñu la jox nag xeeb nañ ko lool ñu ngi lay tàllal suñuy loxo